waaw situation Baye Fall bi euh, maa ngi ko gisee comme pratiquement ni ko ñëpp gisee euh, seulement euh, daf ci am loo xam ne nit ki bu tollee ci benn état bi dafay xaw a doy waar li mu wax rek moo ci nekk xëy na feebaram bi moo ko jox benn nervosité bi jaaxle nit bu jaaxle la muy def du ko contrôler c'est juste ça mais bàyyi nit ku baax la nit ku dal la franchement man sama xarit la personnellement euh, jaaxle daal man laa yaakaar moo ko dal ba mu dugg ci dataay booy moo seexu ay gaañ lañu guddeeg bëccëg ñooy nekk biir Thiès franchement parlé ay waaye lañu ñu ci dara euh, may wax nit ñi ñu peut-être ñu am xelu jéggale quoi parce que erreur la boo xam ne peut-être. Euh, moom ni mu ko waxee la rek njàqare la dafa tiit euh, feebar bi jox ko benn nervosité